Thierno Lo ñu ngi lay nuyu. nekkoon nga ministre ci jamonoy président Abdoulaye Wade tey yow yaa jiite conseil d'administration bu société nationale de gestion du patrimoine du train express régional yaay jiite itam parti politique bi di APD alliance pour la paix et le développement coronavirus lëmbee àdduna laal itam Sénégal ginnaaw li nga xamante ni jël nañ ko muy ay matukaay ci wàllu wér yaram nga bëgg ñu taxawal itam conseil présidentiel jagleel ko wàllu économie ndax nee nga ñu ngi jëm ci jamono bu metti en tout cas lan ngay ragal ragal ci li ñu dëgmal. waaw li may def nag mooy euh, gërëm leen tey ñaan yàlla suñu borom li nga xam ne dugg na ci réew mi yàlla dimbali ñu ba ñu mucc ci. di saluer aussi mesures yi nga xam ne bi président de la jël na ko ak ni nga xam ne noonu la Sénégal yi yëpp àndandoo nekk ci gannaawam ak accepter li nga xam ne moom lañ tëral pour que ñu mun a aar askan wi parce que réew noonu la war a mun a doxe patriotisme ak solidarité. dafa war a am toujours bu fekkee am na loo xam ne lii mi ngi daw jëm si ci ñun ñun ñëpp ñoo àndandoo pour war koo gàttandu donc maa ngi koy remercier di féliciter Sénégalais yëpp autorités religieuses yeeg ak yéen itam presse bi liggéey bu rafet bi ngeen ciy def kooku itam maa ngi leen si gërëm. mais ginnaaw bu ñu waxee mesures yooyu yëpp ak solidarité yi tere li ñu war a tere wax ni ñu war a mel dafa am benn ponk boo xam ne bii dañ koo laalagul woon ca tax man ma bëgg ñu laal ko mooy li jëm ci mba affaire économie bi moo tax ma proposer ne président la république war na tenir benn conseil présidentiel pour que ñu wax ci affaire économie bi ndaxte dañu nekkoon réew moo xam ne mii suñu doole dafa néew li nga xam ne bi moom lañ doon am ci ay ressources mooy liy jóge ci port autonome de Dakar di jaar ci frontières yi di jaar ci aéroport yi ñuy dem di importer ji di indi di ci fay douane leneen li ci def ay impôt la yoo xam ne entreprise yi ak ménage yi ñoo ko di fay loolu yëpp ak suñu mbokk immigré yi nekk biti dañ daal di xaalis bu bëri du ko dugal biir Sénégal mu ñëw ci seen ay njaboot te xam ngeen fi mu ne nii nekkin wa ñu nekkee ci dëkk yañ nekk liggéey ba taxaw na fa am ñoo xam ñu ngi tëju seen i kër génnatuñu donc ñooñu dootuñu yónnee nit ñi mënatunoo voyager pour dem importer ji kon xam ngeen ne port autonome de Dakar recette ya day baissé kon xam ngeen ne Sénégal mi ngi jëm ci ay état du Sénégal lu mu farakus néew lam cay jëkk a réglé mooy réglé problème mu ye yi fonctionnaire yi mu yor nga xam daf leen di fay ak budget bii nga xam ne bi la tàmbali woon na ko lu jëm ci coronavirus bii di ci fay personnel de santé bii di ci jënd ay garab di ci dimbali collectivités locales yi di ci jàppale hôpitaux yi di ko def loolu yëpp kon xam ngeen ne bi foofu la jëm léegi entreprise yi doon liggéey état dootu leen mën a fay chantier yi dafay taxaw kon nag loolu yëpp boo ko xoolee réew mi mi ngi jëm ci fu méttee méttee méttee méttee yàlla bu mu sori wante même bu dee ñaari weer di ngeen gis benn métti ci biir réew mi ñi nga xam ne dañ dañoo importé woon ay produits jëlu ko Chine ak feneen ak feneen mënatuñoo dem pour euh, jëndiwaat leneen gis ngeen li ñu desee ku néew ci ay prix dañ koy daal di yokk pour gën cee gañ xaalis mu indi ay inflation kooku itam dañ ko war a jëlaale léegi nag lu mel noonu bu amee président la dafa war a def benn conseil présidentiel ñu xool yan réforme lañ war a mën a def pour dimbali entreprise yi yan réforme lañ mën a def pour que ñu trouver ay modèle économique yoo xam dañ ciy boole banque centrale ñu interpellé ko interpellé banque yi fi nekk interpellé société yi am xaalis ak ñun ñi nga xam ne am noonu xaalis lan lan ñu mën a def pour dindi pour fexe ba problème yooyu ñu trouver leen ay solution beneen bi des comme dañ daan importer yi ñun réew loo xam moo xam ni lépp lu ñuy am dañ koy importer dañoo war xool li ñuy lekk fu ko doon jëlee kon suñu produit yi ñu wax fi war nañoo commencé di dem dans di prépare dans le long terme naka la ñu war a mën a commencé pour dunde neneen suñu produit yi fi nekk nañ ko war a transformer pour lekkoo ko comme nu mu woon ko woon léegi na bi ñu xamee ne mënutoo da dem ci mënunoo toog ca duñu lekk war nañoo toog seet li ñu desee ku suñu ci ay produit naka lañ ko mën a transformer pour jëm koo lekk ñu fexe ba suñu yàqum xaalis mi ak dépense yu bari yu inutile yi ñu doon na ñu commencé pousse nit ñi ñuy économiser nañu fexe aussi ba ñi nga xam ne bii am nañu alal oubien am nañu kii bu nu daw ci magasin yi dem tibbi ceeb ba fa nekk ak la ñuy lekk yépp dem dañ ko ci seeni magasin ci biiri kër parce que loolu li muy indi mooy new ju doole yi nga xam ñi ngi nekk ci àll bi nekk ci banlieue bi nekk ci feneen bu nu toogee ba gisatuñu feneen fu nu jënd ji dañuy seet fu nu mën a attaqué ji mbir mi daan dem attaqué ji ko parce que il faut nu dund mi ngi mel ni muus bu ndaw muus boo jël tëj ko ci biirum nekk boo amatul fu muy dem yow lay song yooyu yëpp nag dañ ko war a étudier xool ko beneen bi réew yi nekk ci biti ca nga xam ne dañoo war a def ay production ñu waxoon ne ay weeri ngi nii yoo xam ni il faut ñuy produire dañuy daal di xalaat di xool yan zone le virus bi war a mën a dem ba nga xam ne bi la du fa impacter comme il le faut ca itam àggaguñu ci yenn niveau yi pour que ñu def ay délocalisation pour unifier seen ay industrie ñu mel ni chinois yi tey jii pour ñu délocaliser ñëw créer le benn usine léegi en une semaine commencé fi def seen ay production lu leen yomb kon APIX ci boppam dafa war a au lieu que mu seetaan na commencé di tàllal loxoom pour que unité yooyu ñu ñëw fii employé sénégalais yi ñu xool suñu code du travail code suñu main d'œuvre suñu comportement pour que buñ fi dikkee ñu mun fee commencé def fay transfert de technologie dimbali fi sénégalais yi ñu daal di liggéey banque centrale nañ ko interpellé mu xool naka la war a mën a def banque locale yi nañ leen interpellé jugeet naka la ñu mën a def suñuy comportement lool lép nag boo ko xoolee autour d'un conseil présidentiel la mën a demee bu fa président jëlaatee ay décision sénégali yi yëpp ànd ci topp ko comme nañ ko toppoon ci premier conseil présidentiel bii mu def mm. loolu na bu ngeen déggee di ko wax mooy dama déglu ba ñu commencé ba léegi di wax dégguma un soutien à l'économie alors que dans les tous les pays du monde ña def ay soutien à l'économie kee ngay dépenser cinquante milliards de dollars les banques ñu ngi leen di interpeller ñu commencé ñi ngi toog commencé di fay ay soixante mille travailleurs ñu toog seen kër mm. ñu leen di jéem a fay l'État est en train de sortir de l'argent ña ngay toog di éduquer ci naka ngeen demee ci supermarché yi naka ngeen war a mën a def pour que consommation bi ngeen gérer ko donc le soutien à l'économie yéen réew yépp ñi ngi ko jël Sénégal jëlaguñu ko Sénégal dafa yàgg a toog di seetaan di xool ba mu ne tëll ci boppam mu soog a jóg man nag dama am benn capacité d'anticipation et de réaction parce que foofu noonu lañ ma formé donc je suis jamais réactif man damay anticiper damay def évaluation aussi Sénégal du def évaluation Sénégal amul anticipation Sénégal amul ay plan directeur Sénégal ay réaction immédiate képp lay def ki loolu war nañ cee jóg mm. te coronavirus bi dimbali na nit ñi sax ba ñu war a changer lu bari ci suñu ay comportement waaw leneen li de waa joon nga ma benn question ci mm. tubaab mooy ci affaire environnement bi affaire environnement bi aussi li nga ci wax mooy président la république dafa mel ni sax centré woon na lii parce que ba mu commencé di wax zéro déchet ak di wax naan nanu désencombré nañu nettoyé mbalit mi loolu yépp lu rafetoon la ca tey jii jox nañ ko dëgg te lii nga xam ne bi moo xew ci monde bi mooy que ni ñun ñoo déréglé suñu environnement ñun ñoo bouleversé écosystème yi ñun changement climatique yi lépp nit ki moo ko indi coronavirus bi wane na ne loolu ñu doon yàq yëpp mën nañ koo defar parce que léegi pays yi wàññi nañu pollution bi ñu doon def defatuñ ko ñu ngi toog léegi di nettoyer di pulvériser lépp liñ doon bañ ñu ngi toog di ko def pour seet suñu nekkin naka lañ ko war a war a aare donc préservation de l'environnement créewaat ay parc urbain bàyyi suñu forêt yi ñuy dagg suñu zone yi ñu dese woon Dakar muy fore classée de Mbao ak la bande de Filao ñu commencé di ko dagg parce que mooy ñaari poumon vert yi nga xam moo ñu mën a protéger ci li nga xam ne bi la mooy jóge ci jaww ji di jouer ci suñu askan ñu gën cee amaat xel jëm koo defar mbalit mii ñuy jël aussi dama wax ne set setal yàgg naa am ci biir Sénégal boo dee set setal di yóbbu mbëbës nit ñi di ko fekk mbëbës di ko jël di ko dellu soit ci sa biir dëkk loolu doo ca génn mbalit pour matière première la boo xam bi minute bu nekk heure bu nekk dañ koy génne mais la koy régler mooy nga def ay usine usines yoo xam ne mbalit mi boo ko jëlee ci biir kër gi soo ko yóbboo dañ koy transformé booba mbalit doo dootu dellu soit te booba mbalit day am lu muy jur te booba mbalit dafay am ay emploi yu muy créé lu dem mbëbës dootu dellu soit mais boo jëlee fii yóbbu mbëbës transformé woon nit ñi jël ko mbëbës dellu si lu ko sa biir kër te mënoo ko ne di def set setal bis bu ay entreprise yi nga xam ne bi ñoom la ñuy fay ñu war a jël kon matière première boobu di ko yëg usine bële di liggéey ñooñu buñ commencé di liggéey dootoo gis mbalit mu dox ci biir dëkk bi noonu la xewee France noonu la xew ci dëkk yëpp mais Sénégal da dul jël modèle ya nga xam ne bi la mooy modèle yu wér yuy joxe solution mu topp ci ay modèles yoo xam ne informel la ñun jóg ci informel pour aller vers la formalisation mettre en place ay unités de transformation et déchets yi nga xam ne lu génn ci kër gi dootu dégg dootu dellu si boole ko une bonne politique de communication déchets liquides yëg déchets solides noo koy defee ci imperméable bi génn ko boo ko génnee foo koy teg ak kan moo koy jël te bu ko yóbboo dootu dellu si waat loolu lañ tuddee mm-hmm. gestion des déchets foofu nag mhm. maa ngi ciy sollicité président ci initiative yi mu ci jël mais di ko ñaan na yokk pour dem ca essentiel ba mooy mettre en place ay unités yuy transformer déchets yi bu bëggee régler problème mu déchet Sénégal te sénégalais yi aussi commencé set seen biir kër seen xel set seen comportement loolu mooy les premières doses buy régler le problème de l'environnement te ñu changer suñu mode de vie mhm. wutaat ay parcs urbains daal di defaat Dakar mu am ay centres yoo xam dafay am ay fleurs nit ñi bu ñu génnee di respirer mais dëkk bi du ñu respirer lu dul béton tout béton pas de verdure fi amul dara dara dara dara luy impact ci bien-être nit ki feebar rek lu indi te di ngeen gis leneen lu dul ay coronavirus parce que monde bi dafay évoluer suivant ay phénomènes yuy créé yow suivant suñu comportement bi ñuy am di ko jël di ko jëmale ci nature. bokk na ci euh, matukaay yi nga xam ne président jël na ko euh, soxal euh, dem geeg dikk gi ci jaww ji jóge ci yenn réew yi wala di ci jëm fu mel ni France loolu du ñàkk njeexital ci koom-koom bi ci wàllu dem ak dikk na muy transport aérien aérien bi mais wàllu tourisme bi nga xam ne sax yow jiite woon nga ministère bi ñu ko dénkoon ci jamonoy Abdoulaye Wade aussi du ñàkk foofu mu am ay conséquences. wax nga dëgg loolu ci conséquences yi ma lay doon wax ne ci lay bokk la. parce que tourisme. ci voyage la dépendre. te boo bu fi ne nii dans tous les pays du monde. ñoom ñëpp dinañ yëg impact bi coronavirus am boo demee tour Eiffel yooyu. gisutoo fa ay nit yuy taxaw Louvre boo fa demee tëj nañ ko kenn nekkatu fa ñun Sénégal hôtel yi dootuñu fees dootuñu am ay nit parce que kenn dootu ñëw te bu ñëwul il faut que borom hôtel yi di fay seen fonctionnaire di régler seen ay hôtel léegi nag lii tax may wax conseil présidentiel bi bu ko demee domaine bu nekk bu ko étudier dañ ko réformer bu ñu secteur touristique lan la wax dañ ne léegi sénégalais yi nga xam ne bi la yéen da ngeen dem touristique yi dem ci hôtel yooyu bu ngeen fa toogee di ngeen nekk ci benn place boo xam ne bii famille bi rek yéen a fay nekk ngeen respirer fa jël fa jàmm fay fa xaalis pour dimbali hôtel ba mu dox pour que mën a fay courant pour mën a fay employé loolu laa tuddee développement du tourisme intérieur kooku war nañ ko mën a def ba pare étudier aussi comme secteur yooyu dañoo pénaliser yenn mesures fiscales administratives la état bi war a mën a jël pour jàppale parce que xam nga boo leen dimbaliwul fi ni nii dañuy daal di tëj ñu jogaat mukk te loolu aussi secteur bancaire bi war na cee participer banque centrale war na cee participer gars yi nga xamoon amoon nañ ay engagement financier amoon nañu ay affaire ak banques yi il faut que ñu wax banque yi ñu xool agios yi xool modalité yi allègement yi ñu war a mën def pour que ñu permettre sociétés yi ñu continuer di fonctionner di leen permettre seen ligne de découvert yi ñu mën ko utiliser mais loolu yëpp kenn mënu ko régler de façon individuelle comme ça c'est un conseil présidentiel buy war a visiter l'ensemble des secteurs moom secteur bu nekk mu wax fa mesures yañ fi war a def seet ñi war a agir ñu def leen ay injonction sous le couvert de l'État pour que ñu mun ko dem pour que ñu mun a alléger ak protéger changer mode de fonctionnement yépp ak itam jël toutes les réformes et les incitations avec l'autorité de l'État pour que ñu mun a préserver préserver suñu pays bi mm-hmm. parce que bu affaire bi arrêté dañoo war a décoller waat mais am na gouffre boo xam bi bis buñ bàyyee ba réew mi dugg fa dootuñu décoller waat mukk mukk plan Sénégal émergent bi dana patauger dootu dem fenn Sénégal yi dañ gën a jaxase donc il faut que l'État soit préventif et les meilleures décisions de réforme par rapport à un soutien efficace de l'économie voilà monsieur ah. le ministre fi ñuy jeexalee xëy na mooy coronavirus bi daanaka ñu bari jàpp nañ ne musiba la waaye euh, mënees naa jàpp itam ne mbaax gi mu indi mooy euh, way politique yépp fi mu ne euh, dajaloo nañu ci wetu président Macky Sall ànd ak moom ci dogal yi muy jël ngir aar réew mi xam nga mbir mi du mbiri way politique di dong parce que politiciens yi ngeen di tudd nii ñoo gën a tuuti ci réew mi dégg nga lii am mooy sénégalais yi seen bopp ñoom ñëpp fi ni nii ñoo àndandoo d'accord ci mesure bi nga xam ne bi le président de la république jël na ko parce que kilifa diine yi nga xam ne bi la toog nañ amoon seen ay événement yoo xam ni seen i waajur dañ ko mas ci def muy lu leen ñor ñu préparer ko pendant ay ati at investir nañ ci sa xaalis bu bëri seen ay taalibe yu bëri préparé woon pour war faa dem xam ngeen ni buñ ba renoncer ci lu mel noonu c'est le patriotisme c'est quelque chose qu'il faut saluer ça moon ko aujourd'hui Sénégal bu naroon a dem guerre ñëppay njambu ñëppay armé wu mhm. pour dem kon c'est le peuple sénégalais qu'il faut remercier mhm. erreur bi ñuy def toujours mooy di yóbbu problème yi ci politiciens yi politiciens yi moomuñu nit ñi ëpp ñu ci nit ñi te yoruñu fi ay kàddu boo xam bi buñ ko waxee ñëpp reprendre ko c'est une minorité waaye xam nga aussi fa lay gën a fësee yenn saa yi moo tax itam. waaw fa lay gën a fësee. <laughs> fa lay gën a fësee boo gisee ma waxee dama bëgg xam nga bu fa fësee. Mm-hmm. presse bi mm-hmm. ak nit ñi ñooy jox politicien doole ju mm-hmm. amul. di politicien serviteur képp la. dañ koy wax defal ay nit a koy fal ay nit a koy wàcce nan bàyyi di ko jox ki bi ci indi bi ci peuple Sénégal. peuple Sénégal. moo taxaw bii yoon nekk autour de kii mu mandaté mhm. ne ko demal nga servir lu jëral ay mesures parce que yaa war a wax ñëpp déglu la muy président de la république mhm. président de la république bi mu waxee peuple bi ko faloon moo xam ne ñun kat d'accord nañ ak yow ci lii nga xam bi la wax nga ko ci suñu mhm. kon ñun ñëpp danañ taxaw pour def ko loolu mooy patriotisme loolu la état di war a demee ça ne veut pas dire que suñu demee ba dem ci xëccoo ndombay tànk yeeg ku nekk nga dem ak sa programme dem xëccoo ji peuple bi décidé waat war nañoo mën a toog bu essentiel amee ñu ñëw ci essentiel bi ah, bu politique jotee ñu dem politique mais quand la nation est attaquée que ce soit en guerre que ce soit en péril comme bu mel nii que ce soit en idée généreuse ay idées yu baax mhm. ñëpp dañ cee war a jàpp mhm. ñëpp dañ koo war a dox mhm. parce que loolu mooy patriotisme te loolu la ñu yeneen état yi ma ne ah yeneen état yi duñu attaqué seen état ñu gis seen drapeau dañ koy respecté et quand il s'agit de l'intérêt de leur pays duñ ko manage duñ ko duñ ko weccoog dara waaw ñun nag mhm. fii suñu këral politique dina tax sax buñ gisee kii ngi indi lu baax pour mu ñëw ci affaire dëkk bi opposant bële day daw kal xëpp ci suuf pour bañ mu agsi pour bëgg mu bañ a réussir mm. yooyu nag la war a bàyyi heureusement nag ci problème bii uh-huh. coronavirus war na ne am na comportement yu baax mm-hmm. yoo xam ne mën nañ koo am te du wàññi dara ci suñuy ngëm. ñu ngi lay gërëm monsieur le ministre fàttali ni yow yaa jiite conseil d' bu SENTER jiite itam parti bi di APD alliance pour la paix et le développement amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi. maa leen di gërëm bu baax a baax a baax bi ma xalaatee pour que ma joxe sama xalaat. merci beaucoup.